gis nga yi ma la fi expliquer nii yëpp. waaw muy récépissé parti bi jàmbaar yi euh, financement étranger bi euh, Kolda Pikine policiers yi fi ñu arrêté yëpp yooyu yëpp xam naa exactement nan la ko yoon doxale te amu ci benn boo xam ne ñun dañoo juum waaye nag man damay insister ni ñun ay ay nitu responsabilité lañ am na dëkk bi foo xam ne bu fa tolloo am na yoo xam ne da koy bañ. Ah. ñun noonu la ñuy doxalee. parce que ñun dañu bëgg a yor Sénégal te bëgguñu yor Sénégal ci fitna. Ah. loolu mooy suñu approche. keneen am na beneen ah, approche keneen am na beneen approche. loolu mooy suñu identité man Abdourahmane Diouf. di wër jàmm pour bu ma yoree Sénégal mën ko teg ci jàmm.